Euh, judiciaire bëri na euh, la dernière en date euh, bu Pape Alé Niang suñu confrère bi nga xam ne mun nañu wax ne la sûreté urbaine bu Dakar rek moo ko Euh, teg loxo dimanche bi euh, ñu weesu ce dimanche 6 euh, le concerné Pape Alé Niang moom il parle de kidnapping ndax rek anam bi nga xam ne moom la ko sûreté urbaine jag jagat jagate yóbbu ko foofule si police ñu def ko aussi moom tamit li nga xam ne mooy mandat de de de de dépôt mandat de <laughs> moom tamit li ñu koy toppee moo nekk rek recel de documents administratifs et militaire ay documents yoo xam ne rek euh, si wàllum armée bi ñoo ko moom te mu nekk ay document yoo xam ne rek wariñ koo fësal si espace euh, public bi euh, nit yu bëri nag am si ay gis-gis yu uute gis nañ sax euh, ay journalistes yu porté combat bi eux ils de combat de principe ñu gis ne aussi y a des sorties Ousmane Sonko artu na si kilifa naka nga gisee arrestation kii di Pape Alé est-ce que da koy ranger aussi si logique yi kii di président de la République Macky Sall pour rek museler ñenn nit ñi nga xam ne ànd ak moom ñi wax kii di Pape Alé dafa violé rek yi nga xam ne mooy euh, ay euh, secret yoo xam ne euh, c'est placé top secret. loolu lan lañ koy wooyee délit de presse. nan délit de presse lañ ko tuddee n'est-ce pas. Macky Sall toogul moom te moom buy wax ay waxam yi nga xamante ni moom mooy loolu day dem ba ca biti wax ko fa adduna bi yëpp di ko dégg da ngay sax rus. mu ne man Macky Sall tant que maa ngi nekk ci kii que on va jamais encarcer euh, euh, on va jamais emprisonner un journaliste par délit de presse. mais mais mais waaw non laisse-moi pour le cas de Pape Alé deux minutes au moins pour poser ta question je t'ai laissé. waaw donc laisse-moi développer. allez-y. ba tey Macky Sall laay wax ak ci li nga ma posé ak Pape Alé na génn ma ci maa ngi ñëw. alors délit de presse lañ koy wooyee. c'est monsieur le président de la République ndeysaan bu jàkkaarloo weeg tubaab c'est un complexe. il peut promettre. Il peut, il peut, il, il, il peut lui montrer que c'est le meilleur de tous les présidents. Et pourtant, rien ne l'empêchait de l'être. amul lenn lu ko waroon a empêché mu nekk le président qui va marquer les Sénégalais à jamais mais pour wan tubaab yi neen wéy ñun dañu am esprit de ñun dañu am démocratie notre démocratie dugg na fii génn fii day wax loo xamante ni. xa déglu moment mais kilifa am nañ démocratie nag bu ñu amutoon wax. je suis euh, li may wax nii. ah, ah. man Rwanda bi nga xam ne yéen ñëpp à chaque fois vous les activistes da ngeen koy jël en exemple yow Rwanda yaakaar nga ne carrément ñoom ils ont la chance seen ay activistes nekk seen ay plateau télé wala ay seen journaliste di wax lu ko lu lu leen neex je suis désolé. mais fii am na liberté euh, d'expression et la démocratie elle est bel et bien présente expression bi ñuy wax nii. ça c'est peu. daf fi amul sax. Ah parce que yow déjà njàpp tey bi nga bi nga daree wax ba léegi bi nga bi nga bi may wax ñi ñu tëj ba tey lan nga ma wax dañoo wax lu neexul Macky Sall ñu tëj leen yow boobu ba léegi loolu nga may wax c'est ça la démocratie c'est ça la liberté d'expression c'est ça la liberté de presse et je suis désolé qu'ils arrêtent aussi nañu bàyyi bu ñu bu nit defee dara ñu jël ko graawal ko naan Pape Alé dafa génne ay information yoo xamante ni day taal réew ana fu ban réew a tàkk Sénégal daa tàkk bi ko Pape Alé waxee ay loo xamante ni secret militaire la mooy secret militaire PV PV boo xamante ni dossier suite bu ci lan mooy secret militaire et puis nañu bàyyi suñu armée bi ñuy fowee armée bi nga xamante ni ñëpp dañ leen a ndax seen njàmbaar ndax seen xarañte ndax boobu ba léegi ñu ngi aar di ñu sàmm nekk ci frontières yi ay nekk ay doomu jàmbur te liñ leen di fay dara baaxu ci mais ñu nekk ay patriotes gëm ni il doit servir ce pays di ko gérer avec dignité ñu jàpp hmm. armée boobu di ko di ko bëgg a def këyit qu'ils arrêtent ban ban ban ban ban ban ban information armée la la fi Pape Alé génne Pape Alé il a parlé de de de de li nekk réellement li nekk ci pro li nekk ci euh, kii bi nu mu tuddati ci dossier d'enquête bi rapport euh, gendarmerie rapport gendarmerie Pape ci yooyu la doon wax mais comme dañoo falsifier ay rapport modifier ay rapport Pape Alé am loolu génne ko ñu ne Pape Alé daa wax luy taal réew ay waay te ñoom ñu def lu fi taal réew ñoom ñu comploter sur le dos de de de quelqu'un qui est un potentiel euh, un rival un vrai rival du président Macky Sall ñu comploter ci kawam ba tax Sénégal takk fi 14 personnes dee euh, ñoom kay ñoom ñooy def luy taal réew à chaque fois mais Pape Alé un journaliste d'investigation d'investigateur dem uti ay information mu jaral ko mais euh, Pape Alé maag moom ñoo bokk mécanicien ya y a même pas une semaine je pense que ni ki semaine bi ñu koy arrêté daje nañ ci suñu mécanicien on a eu une discussion waxtaan bu yàgg bu yaatu man ak moom Pape ale est-ce que tu sais que ni li ñu doon def ci Macky Sall bi ko Ablaye Wade bëggee néewal doole defu ko ci Sonko bi ko Macky Sall bëggee neewal doole jour bi Macky Sall di jóge police centrale. y avait que la voiture de Macky Sall et la voiture de Pape Alé moom moo topp comme li ñuy wax euh, investigation moom moo topp oto bi kii ba ba xam ni waa ji mu ngi ci jàmm nekk di joxe les informations en temps réel di di di di di di démontrer seen seen complot bi ñu buggoon def ci Macky Sall ni ñu ko buggoon a sànkee tey lii la ko Macky Sall di fayee. ñun ñii Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët ni 2011 2012 ñoo taxaw ci kanam ab Ablaye Wade lii du fi am gis ngeen li ñu Macky Sall di fale di fayee Macky Sall bi mu njëkkee toog lan la njëkk a def dafa dem dafa dem jëli ay ay ay ay groupe de presse am ne leen sama premier projet mooy tentative de diaboliser et de discréditer de de de jeter le discrédit euh, ci ci ci waa Y'en a ba ci ndem si yàlla Pape Cheikh Sylla nekkatul sax journaliste xaw ma fu mu fu mu nekk léegi fu ma koy dégg <laughs> maa ngi lay nuyu de passage taxaw na fi waxal ñu wax ju garaaw bi ñu demee ba yàgg ba yàgg ba yàgg ba bi ñu nee yàgg ba yàgg eh, dindi eh, tout eh, setal ñu dafa toog ak dañu toog ak moom ci plateau di ko ko wax mais dafa ruus ba ba kii nii cest à il faut que les gens arrêtent un journaliste tu dois être un journaliste tu dois ton métier comme ni nga ko ni la ko jàngalee ci seen école yi leen di former mooy un da ngay joxe xabaar ñan ngay jox xabaar bi mais rester aussi dans le factuel. ma nan ñan ñan ngay jox xabaar yéen gis nga xam nga il faut que gis nga gis nga nañ leen bàyyi caaxaan quoi gis nga njàpp xam nga mooy li ma lay wax quoi xam nga li ma lay wax mooy lan. Hmm. ah mooy que ni dañu nekk par exemple ñu nekk ci biir kër gi papa ji dem génn. <laughs> bi mu génnee ut euh, bi mu génnee yàlla def mu am dépense. Hmm. mu ñëw jox yaay ji. Hmm. yaay ji nduggi ñu jox euh, jànq bi euh, ñu jox euh, gouvernante bi ci kër gi muy togg am koo xamante ni peut-être xam na ni gouvernante bi dafa bëgg a empoisonné waa kër gi muy topp di xool ba gis ni gouvernante bi sànni na poison ci ci ci ceeb bi mu dénoncé ko ne bu leen lekk ceeb bi parce que dañ ci sànni poison ñu jël kooku ne ko ni ngay defee woy secret la boo xamante ni ci cuisine bala waroon a yam waroo ko génne ba nit ñi dee non il faut que tamit ñu arrêté quoi bi tey Pape Alé n'a absolument rien fait mais dama koy waxaat fii xam nga wax naa leen ko fii nii nee naa leen. Mhm. suñu teelul taxaw wax ak Macky Sall mu arrêté li muy def nii en tout cas bés bu yeggee fa mu bëgg ñu yegg ah duñ ne bu kenn ne ne artu wuñu woon. Mhm. bu kenn ne amul am am am nañ non non gars yi dañ fogoon ni rek dañu dañuy acharné wu ci kaw Macky Sall alors que non moi je n'ai rien contre Macky Sall je rien contre Macky c'est le président de la république yàllaa ko ko def bi mu ko koy def tàgguwuma mais aussi bi mu ko koy def yéen nekkoon sa place de l'objectif ak très bien mer gàddu bi très bien alors mais loolu <laughs> comme vous aimez lui rappeler le le minimum qu'on demande à Macky Sall mooy mu gouverner ñu ci respect mooy mu gouverner ñu ci yërmande mooy mu gouverner ñu ci xam ni dañ koo dénk 17 millions de sénégalais mais dénkuñ ko benn 1000 militants boo xamante ni dafa war a satisfaire seen besoin dañ ko dénk 17 millions de sénégalais mu war a yemale war a nangu ay critiques. rétablir aussi l'ordre aussi kilifa euh, aussi. rétablir l'ordre on est dans une république aussi. kon lan la Aliou Dembourou Sow di def te tëjuñ ko ci kaso moom mu ne nañ génn jaasi rayante ki taxaw ne Ousmane Sonko nañ ko fekk këram rendi ko ki taxaw ne papaay Ousmane Sonko dañ ko war a jongal c'est-à-dire il faut qu'on arrête aussi benn instant ki taxaw dem de sciemment préparer ay yëfam contre kilifa kooku euh, kon lan lañ koy def ak ñeneen ak ñeneen j'en passe mhm. c'est-à-dire man loolu mooy suma problème bës bu ñu bés bu fekkonte ni par exemple yat bi ñun ñuy dalee lay dale waa këram yi non bu boobaa dinañ ne kii ah wax dëgg yàlla làqul doomam di dóor doomu jàmbur yi mhm. mais foo mës teg jël say doom làq leen nit ñi ñoom ñoo gën ay prince lañ seen yaram yi dañ koy diw euh, euh, sang leen bañ set solo leen yere mais doomu jàmbur yére dama leen di futti bañ set jël caravage di leen ko ñaf fu ñu yëngatoo ba pare bu ñuy jooy ñu naan ñu bàyyi leen seen jooy yi da ngeen bëri jooy ñi ñuy wooyee les les hypocrites te demoon ca nga xamante ni moo téye yar bi di dóor ne ko arrêter sa dóor yi non il faut qu'on arrête benn instant aussi njàbbite il faut qu'on arrête gis nga l'affaire et sérieuse dama koy wax ba émission bi di jeex ji ko bamtuwaat <laughs> na sénégalais yi nga xamante ni tey jii mooy ñi ñu yilif muy suñ kilifa diine yi suñ kilifa aada yi ak ñeneen ak ñeneen nañu génn ñu wax ak Macky sàll mu arrêté li mu nekk di def balaa ñuy yegg foo xamante ni dina trop tard mais euh, kilifa à chaque fois euh, bu ñuy wax euh, wàllum justice damay gis. yéen ak it ñenn ci opposition wala ñu ëpp aussi ci sénégalais yi dañuy euh, pointer du droit accusateur euh, du doigt accusateur kii du président de la république Macky Sall te ñëpp xam ne ni fii au Sénégal on a trois pouvoirs donc mu mel ni comme cette indépendance de la justice bi nga xam ne da ngeen koy remettre en question à chaque fois da ngeen koy ñëwaat teg ko ba tey euh, sur la table d'où ma question est-ce que vous n'êtes pas en train di fragiliser suñu ay institutions wala sax di jeter ñi nga xam ne mooy ces magistrats ces juges ainsi de suite euh, corps bi nga xam ne moo euh, ëmb euh, yi fii ci Sénégal si population bi aussi. man les juges les juges par exemple. yi nekk ci Sénégal j'en connais beaucoup je suis ami avec ñu ci bare bare bare ñu nekk ay juges yu intègre yoo xamante ni kenn mënu leen manipuler mais tu n'entendras jamais leur nom parce qu'ils refusent d'être manipulés kenn du leen promouvoir doo dégg mukk seen tur parce que bugguñu nanguwuñu ñu manipuler leen je ne vais pas citer des noms mais j'en connais beaucoup et j'ai du respect pour la justice mm. mais très honnêtement je ne respecte pas certains am na ci ñoo xamante ni ñuy incarner une justice boo xamante ni moi je ne me reconnais pas là-dessus très honnêtement pour dire vrai je vais prendre mon cas Par exemple, le juge, il a le droit d'interpeller une personne. Mm -hmm. Même par, par, par, par, par kii par, euh, par suspicion, wala par kii quoi. Mhm. maanaam jot mën na interpeller une personne. Le juge, il a ce pouvoir. Mhm. Mais bu interpeller nit aussi, il a le droit mu def ko mandat de dépôt pour seet li muy seet. Mais bu ko gisul automatiquement il doit édifier son sort wax leen ni leen lii la lii moo ci xewoon lële la ya ngi comprendre mais fii lan lañ gis. lan la ñu gis quand il s'agit par exemple d'une affaire qui n'est pas politique dañ ci da ngay gis dañ ciy doxal mu naay sax mais quand c'est politique da ngeen di gis ñuy def loo xamante ni c'est commandité. finalement est-ce que nekkul aussi da euh, parce que déjà euh, politiciens au Sénégal on a comme l'impression que considéré wuñ seen bopp comme des justiciables aussi à chaque fois bu ñu amee dossier judiciaire dañuy monter au créneau pour wax ne carrément on a été comploté wala kii di président de la République Macky Sall wala sa Abdoulaye Wade. loolu dafa dafa loolu gis nga loolu euh, comme ngeen koy waxee à chaque fois ñu le di tëj si moins que ay milliards. wala sax ay ma nañ ma tëj je suis sénégalais comme tous les sénégalais. gënuma fi kenn kenn gënuma. yaa may dégg aussi bu leen lu ma def. bi ma justice woowe yaa may dégg. Mhm. na ma dama la soxla. dama dem wuyu ji woowuñ ma sax déjà dañ ma cueillir. Mhm. pour créer spectacle. kilifa nga xamante ni mu ngi fees dellu ki dëkk bi jaaykatu naa sax bu euh, jaaykatu kafe bi taxaw buntu dik su ma woowoon téléphone ne ma waa dig dañ la soxla ma taal suma oto ñëw. il n'avait pas besoin de venir me pour commencer. ñëw fa ak cinq ponkal <laughs> non si si si si si waa déglul xaaral rek ma ñëw xaaral rek ma ñëw xaaral rek ma ñëw ci ci autosaisine ci <laughs> autosaisine suñ ma woowee téléphone ma ñëw mais ils n'ont pas fait ça ñëw nañu jéem a dof dof lu foofu sans panique sans kii ma topp leen bi ñu ñëwee taxaw naa ma woy vidéo bi ñaña ñi ñaña ñaa ñaña ñaa wax wax may leen vidéo bi comme ni ngeen ko gisee jarul ñu ci wax ji di sooy li ngeen di dégg yëpp man maa ko wax mhm. Ah, maag moom a toog ñoo nekk di waxtaan c'est un <coughs> léegi c'est quoi le problème ah, ñu toog toog xool ne ma wëy léegi il faut ñu xaar ba suba may leen amul problème ñu xaarat yi ba suba ñu waxati waxati waxati waxati waxati ñu ne ma foog ñu xaaraat foog ñu def benn confrontation euh, confrontation jàppal bàyyi dëgg na fi génn fi dara mm. ba ñu mujjee ci la ñu ne non léegi finalement dañ lay toppee escroquerie ma ne ko may leen kan laa escroqué dafa am une plainte contre moi ci escro euh, escroquerie ñu ne ma non amul plainte mais xam nga rek boo yaa ma gën a xam c'est ce mm. que c'est ce que c'est l'inspecteur m'a dit mm. yaa gën a xam ma ne ko amul benn problème ñu dem parquet au lieu que mu yem foofu ñu yóbbu ko au flagrant délit juge que ne ma woy euh, gis nañ ni da nga doon escroquer ma am su sumay avocat ñu défendre ne non escroquer wul convaincre leen bu ñu leen convaincre lu ñu may teg daan ñu teg ma ko daan ils n'ont pas fait ça mm-hmm. lan ngay dégg quand c'est un dossier de quelqu'un bi nga xamante ni dafa nekk di def contre Macky Sall ñoo koy def exprès di ko def mandat de dépôt di ko def instruction. Mhm. pour lan pour kooku mën a kéemaande wala pour kooku euh, tiit ragal bu bàyyee ñu koy teg ay chantage du dégg nga démb le frère de Pape Alé li mu wax. Mm. que Pape a refusé une médiation venant des des des des des des des personnalités hautes personnalités pour mu noppi wala pour mu bàyyi euh, yàqal bi muy yàqal Macky Sall pour mu éliminer ñi ñi mu bëgg a éliminer Pape Alé bañ dégg ngeen ko mm-hmm. donc loolu kese la ñu ci jublu mm-hmm. ñu ñëw ba ci ay kesew kesew mais attends